mais lu ma gën a métti aussi métti bon <laughs> ça m'a fait rire quand même noonu de Dieu mais gars yi dañu am problème dañu am problème mu xeex ñoom ñoom siw moo leen sonal siw mais man dama ci jàng lu bare bare bare bare bare bare bon dañ koy jéem a teg quoi heureusement <laughs> yàlla dafa garaaw man doonuma enregistré appel mais léegi gis nga boo dox ci dëgg yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa mel ni moo lay orienté ba mu toogee dinañ ñëw ci fen yëpp ah mais te ñuy fen yëpp nee nañ ay patriote lañ ah mais man tuddewu ma leen patriote kàcciriyote laa leen tuddee kàcciriyote ay kàcciriyote ñu nañ ay patriote lañ <laughs> xam naa gars yi yaakamti woon nañ moolaa nit nii rek ñu ne waaw waaw gis nga nangam <laughs> ku leen bàyyi nu mënuñu jox sénégalais dara lu dul ay kàcc ay fen ay patriote la dafa am Sénégal dafa am ay patriote am ay patriote ñoo xam ne kàcc rek la ñuy def kàcc rek dañuy taal di kàcc di dem te xoolal duñ jox benn Sénégalais Sénégalais leen tàmmal preuve Sénégalais gars yi bàyyi nañ loolu ay ñëw di kàcc di dem sa yoon déedéet Sénégalais yi leen tàmmal preuve looy wax da ngay indi ojo da ngay am da ngay indi vidéo da ngay indi lépp ngay indi loolu lañ leen tàmmal mais yow nii rek di ratatati loolu moom loolu jëlewu fi kenn jëlewu fi kenn amul benn nguur bi buy toog ci ay kàcc di ko fa jële dañuy jàngal le le le le soi pour la patrie dañuy jàngal dëgg dañuy jàngal jub dañuy jàngal boo xamul noppi mais gars yi woote fii ay kàccir yot yoo xam ni ku la dàqa duul nga aka ne ton na dàqa fen kuy fen si <laughs> mais aka ne ton du nit aka ton lépp moom adul du dudul nit da ko fen Abdou Akhenaton musul wax depuis l'histoire du Sénégal musul wax luy dëgg chaque jour day fen di yokk di fen mu moo fi ñëwoon ne Moussa Fall mi ngi ci lal hôpital léegi mu faatu duul duulu tooy man maa na ko bàyyil fen Moussa Fall euh, euh, feebaru loolu duulu Akhenaton la Akhenaton fi ñëwoon jàpp Fouta Tampi yéegal ba ci kaw yéegal ba ci kaw tóoj ba ci kaw duul kàcc kàcc kàcc yoon du mag a ngi noonu <laughs> nee na day xeexal nee na day xeexal moo fi duul looloon fa a Tampi moom la moom Fouta Tam moom moom Akhenaton Akhenaton la fi duuraloon maa xam jàll démb démb démb yàggul sax non maa xam ku baax la non maa xam du kii la muy kii après jël affaire yi photo yow ay kenn maa xam nii moom am keneen ku dugg ci biir maa xam gis nga Akhenaton ku yaakaar moom fan de fan rek lay def bu yeewoo suba bu guddi. mooy yeewu ne attention moom Ousmane Sonko jàpp nañ ko pikir nañ ko pi pikir assassin boo xam ni da koy rey kii deret bi war waru joxe deret bi parce que dañ koo rey xoolal du rek Akhenaton fan rek lay def foofu. da leen di fen matin midi soir te xoolal day yeew rek duul moom duuli praan la naan ay duuli praan day yeew rek kàcc ak ada ton <laughs> ba pare noonu lañ fooyee ko ay ay ñoo xam ne dañoo judd ñu nampal leen ci ci weenu góor benn waaye bu toog ci internet di fen rek yóbbu na fi Ousmane Sonko ne dañ koo piquer léegi mu faatu Ousmane Sonko dañ ko assassiné Ousmane Sonko otom bi na moytu dañ faa def bombu euh, euh, général Moussa Fall léegi mu faatu mi ngi ci hôpital France Fouta Tampi kenn gënu ko maa xam Diallo kenn gënu ko du rek la <laughs> te tey sa réclame Pastef quoi ndeysaan Pastef mooy moom daal Pastef mooy kumba amul ndey ku jommi ñëw duurkat bu teg jóg Pastef moom mooy mooy kër ko amul bunt fooy neex jaar fooy neex jaar <laughs> boo toogee yow daal dee kàcc rek kàcc rek kàcciroot dóor sa duuli prendre kàcciroot kese yor sa li ngay wax yor xool cinq ans cent ans Akhenaton du leen indil preuve cent ans Akhenaton daal yeewu ne rek <laughs> waaye man man Sénégal duñ ko defar man dama foogoon ni Sénégal ñun dañu booloo pour xeex fen dama foogoon ni ñun dañu booloo pour teg fi dëgg man fooguma woon ni dañuy booloo pour ay fen man gëm naa ni fen du mus a jëlee fii réew mi man loolu laa gëm fen du mus a jëlee maanaam ñi fi nekk fen du leen fi jële dëgg lañu war a jël dëgg xeexee ko dëgg yàllaa ko moom yàlla dimbal lañu ci dëgg jooju ñu am ci ndam mais fen mënuñu ci am ndam duñ ci musa am ndam ci ay fen duñ ci musa am ndam waaw wax ji may wax nag day des fii ay génération ñi ñëpp dañ dee wax ji des fi ñëpp dinañ dee ñun ñëpp wax ji des fi dama ne man maa ne ay génération yu ñëwagul bu leen musa xeexee fen bu leen musa xeexee sos ñi may waxal nag judduguñu bu leen mus a xeexee fen bu leen musa a xeexee loolu dëgg ci dund mu neex mu naqari teg leen dëgg buñ leen laajee ngeen jël li ngeen yor muy preuve ngeen teg ko bu leen musa toog yéen jeunesse yi di ñëw bu leen mus a toog jàpp ni ay fen mun na fi jëlee lu dëgg lu dul dëgg dëgg ko fi jële mais ay fen du ko fi jëlee donc euh, am na malheureusement ay doomu aadama yoo xam ni malheureusement man foogoon naa ni fen ci ñoom Macky Sall la fekk baax cttt foogoon naa ni fen billahi gàngu ma gàngu Macky Sall bekk moom ndakate kàcciriyoot yaa ngi fees dell del del del del ci Ousmane Sonko ay kàcciriyoot ñi ngi fees dell la ilaha illallah de gars yi yóbbu nañ ma fi benn hôtel bu mille nangam dollar <laughs> la ilaha <laughs> jaajëf waay naaj ah. sax waaw waaw dëgg kay. fen ba nga xam ni ay fen yoo xam ni dañuy dem sax jëli non mais ndeysaan non mais xanaa xamu leen ni man Mollah maay doomu aadama boo xam ni kenn munu maa xeex ci fen bu ma toogoon fii ba suba ngeen jël li ma liggéey te xam ni maa ko liggéey te teg ko ci yoon ngeen dagg ko loo leen mën a def mu leen ma daane barki laa ilaha illallah man yàlla laa jiital ci sama xeex bi munu leen muusaka waane dem ci seeni i fen yooyu moonte dagg kay leen neex ngeen nax mais munu leen yàlla te doo leen am ndam ci loolu ma ne yàlla gëmmut nalawut ku fenal doomu aadama gis nga bu ñuy fenal Ousmane Sonko ne dafa violé yàlla moo yaral man mii ma jël document bi ñëw taxaw dóor dóor dóor dóor dóor bu Ousmane donc kenn lu xeexee fen déedéet ba ñuy bëgg a sànq Ousmane barki alxuraan xaw ma woon sax ni man la yàlla nar a yabal ma dem wax ak jaam yi loolu la yàlla def ma ñëw rocc ko ci kàcc gi addunay puukare addunay kàcc donc kenn du fen fen donte dañ lay rey waxal dëgg loolu la wax kulul xàq yàlla walal kaanu mu ran waxal dëgg donte dañ lay rey mais patriotes yi góorgóorlu leen quoi parce que man je ko que Ousmane Sonko dafa teg benn mouvement boo xam ni wala benn parti boo xam ni parti dëgg la xàq bil xaq isbul xàq la xaddaaw taaj mission kàq bi naasiril bi bil xaq bi man yaakaaroon naa ne Ousmane Sonko loolu la teg mais dama gis mbalit gu doy waar ci Ousmane Sonko ba pare nee na dañuy xeex système nee na dañuy xeex système xeex système kenn du ko xeex ci fenn système dafa dëgg système nu mu bon bon bon ab mag ak magum la système di dëgg rek mooy xeex système dëgg rek mooy buddi système fen du buddi système du mus a nekk te fen maanaam nit buy jëriñoo fen pour xeex ci doo am doole mukk doo am doole mukk xam nga bu bu ma toogee ñu ñu monté seen seen euh, ndeysaan ci yàlla xaru Akhenaton moom daa fa fen ba néewi Akhenaton nee na ke xaw ma lan ñaata xoola oh, moom moom ma ma nga toog France de dugalal na ma de nee na hôtel bi 506 dollars la la nuit léegi ñaata dollars ñaata nuit laa fa def kon 506 dollars moom mun naa ko am moom sincèrement waaw une semaine mun naa am lu ëpp 506 dollars ak anetoon yow yow xamoo fii Canada fii une semaine sama liggéey mun naa am lu ëpp 506 dollars une semaine ci sama liggéey une semaine kese ah mun naa am lu ëpp loolu yow dama yaakaar ne yow yow est-ce que yaa ngi liggéey parce que boo doon liggéey man may liggéey. am sama 506 dollars waaw jox jox naa la ko de yow 506 dollars ma dem jël benn unité et après e après benn unité et après liggéey li may liggéey ñëwaat et après mais da feebar xool mais ak di doon moom pour moom ma ngay dóor di diw di dem rek dóor na ma fii de moom pour moom damay enlever mais 506 dollars dafa nekk dara góor yàlla am doole di ñafe di faay mais 506 dollars <laughs> moom dafa am problème ah. bon loolu ay duulu Akhenaton la quoi ne man lu ma ci gën a garaaw mooy Akhenaton du indi facture ton du indi audio ton du indi vidéo Akhenaton laa day ubbi di wax rek ak Akhenaton mu yeewu pom pum Akhenaton ñu ngi xaar Akhenaton ñëw bon ne Doro Gaye <laughs> ak éliment Lam ñoom ñoo ñoom ñoo ma jox ñaata parce que dafa bëri ay dafa bëri nag bon euh, euh, ay ay carte bi moom dañoo mën a duul nag dañoo mën a fen bon am na ñu wax ne 2 milliards lañ ma jox am na ñu ne Elimane Lam ak dooro Gaye ñoo ñëw kanadaa indil ma 25 millions. God damn it man that's crazy man léegi mais lii ban xeetu xeex la ak ne ton nit moo yore cinq million jóge ba Sénégal romb ay aéroport romb policier romb xol ñoo dugal fii jóge la ba Sénégal ñoo dugal fii 25 mille millions. waa léegi xanaa xanaa xanaa douanier dañoo dee vingt cinq millions waay deux cent cinquante millions maanaam vingt cinq million non duul yi dafa kawe man fàtte na deux man waxuñu vingt cinq de man laay lay la ne ak a ton waa ji xam ne moo benn duulkat bu toog ci internet bi nee na Pastef la bokk de tëj lu ay nit kooku daa yeewu rek jël benn doorogay jël benn élément lam il paraît que si lendemain bi sax yokkaat na ci nee na deux cent cinquante millions lañ ma jox waa léegi deux cent cinquante millions ku ko indi moom fu mu jaaree xanaa jaarul ci aéroport yi de <laughs> c'est que suñu suñu nawle bu ñuy xool dañuy ree quoi. billaahi bu suñu nawle bu ñuy xool dañuy reye parce que te man Sénégal dañoo war a mun a différencier ñuy dox ci dëgg ak ñuy fenn. ñu jël ne ñuy fen parti bi lañ bokk ñi ñëw ñu dox ci dëgg bu méttee dañuy dox ci dëgg bu neexee dañuy dox dëgg mais dañoo dem ba Sénégal dafa mélangé wu kenn xamul parti bi parti yëpp ay biir bi daw lañ fenkat yaa ngi fépp ci parti yëpp di fen di teg di di di yeewu suba ba guddi di fen di sos di rek rek Agathon doon nee na waaw Agathon yow deux cent cinquante millions lañ ma indi la kan la kan la ci Dora euh, wala Elimane euh, non peut-être Dora la waaw ah, ok Euh, après dinañ teg daal dinañ teg euh, ay audio quoi mais deux cent cinquante millions moom fooy jaar <laughs> loolu Akhenaton war nañu wax ban aéroport ban doomu aadama moo am fit jël deux cent cinquante million di romb ay aéroport di ko indi ci saak applaudissé <laughs> waaye duulu duulu kàcciri yoot yi applaudissé gars yi duulu kàcciri yoot yi <laughs> yee loolu mooy duulu kàcciri yoot yi les soins disant patriote ok léegi deux cent cinquante millions yi ñëw na kees boog naa ne lu wax di dañ ne kàcce di weddi ba pare am ni naa yi nga xam ne dañuy xeex dëgg de dañuy dem di aimé di like waa ji du du vidéo du photo du facture du audio non barki alxuraan Macky Sall bu dee nii nii lañ lay xeexee non di nga jaay doole man gëm naa loolu bu dee nii lañ lay xeexee ci kàcc yi billaahi di nga jaay doole parce que man gëm naa ni kàcc du la fi jële xeex bu dëggu bu ànd ak farata ak sunna moo la fi mën a jëlee mais bu dee kàcc lañ ñuy def non doo fi gaaw jóge man de maa ngi woo tante naa ba sonn nag jot ki nga xam ne mooy euh, dooro parce que buggoon naa mu nettali ma deux cent cinquante million yëpp ma indil euh, nan la ma ko indilee quoi vraiment jee tante tante tante ba jot ilimaan lam dama woo woo woo ba sonn moom ko maa ngi jéggalu parce que audio jàmbur moom waruma ko sax enregistré mais bëggoon naa xam quoi bëggoon naa xam te waxuma ko sax nga bëggoon naa xam man nan laa nan lañ ma indi lee cent cinquante millions yi c'était intéressant <laughs> eh, kon jox na Mollah Morgun deux cent cinquante millions <laughs> Doro Gaye nee na Doro Gaye moo gën a sonn ndeysaan xam naa dañ ma saagati ndey ba ma sonn ndeysaan moom indi nañ ko fii de Doro Gaye <laughs> moom indi nañ ko Canada ba ñëw indi aca dooru kaa wax sa 250 millions yi nga ma jox foo ko jaarale ci banque yi wala ci nu mu tudd transaction bancaire wala kon ak na ton non maa ngi doog a gëm nag Yérim Seck lu mu doon wax nag quoi sincèrement nee na kuy wër duul duulaloog duulaloog kàccirilo kàccirilo ak kuy naan duuli paan suba ngoon bind na ci livre am ak na ton mais dëgg-dëgg Yérim billahi wax nga dëgg wallahi bokk na ñu dàq duul Afrique sow jant moom waaw léegi bon ñëw na jox ma loolu euh, quatre cent cinquante millions ok deux cent cinquante millions ok xaaral ma xool waaw ci wax eh, man de loolu ñu ne Doro jox na Mollah Morgun deux cent cinquante millions

nee na a la demoon umra ñëw mag euh, papay jabar ji gaañu mu kii ci te te patriote yi yóbbu nañ ko ba Canada mu indaale ay saak yi def deux cent cinquante millions patriote yi nee na dañuy xeex nee na dañuy xeex faux de faux usage de faux patriote yi ñu ngay duulal <laughs> billahi wallahi gii nit da seetal dëgg mais non non c'est pas pour rien Yérim Seck xool Euh, ak a na ton mu fen ba wow ba mel ni paa yàggee fen ba wow koŋ mu xam ni kii fenkat la mu bind ko ba ci livre cest à yow yow yow ak a na ton sa giiru dund sa giiru dund say doom bu ñu màggee bu ñu ubbee livre dañuy fekk ñu leen seen baay fenkat la woon seen baay ci biir livre yi ngi ci biir livre seen baay dinañ ubbi ubbi nii ñu leen seen baay ko mënoon duul la dee na ci ay fen la dee léegi yow waa yow yóbbu nga ko foofu yóbbu nga ko foofu fekk moom vraiment nekkul foofu sax quoi bàyyi leen fen bàyyi leen fen bàyyi leen kàcc bàyyi leen kàcc voilà loolu laa laa leen wax boo leen mën foogee ne da ngeen xeex ci kàcc da ngeen di nax seen bopp voilà man awma amiwu kenn Doro Gaye san Kaolack quoi ma xam ko mu nekk waa Kaolack ma nekk waa Kaolack ñun ñi ñëpp xamante Kaolack du sama ami on se pas on se parle pas man maa lijjanti numéro ñu jox ma ko ma woo te am naa ci droit Doro Gaye defuma tous te ba ma waree wax ci moom damaa wax ci moom man du ma fenkat de dama ñëw wax ci moom lu leer nañi maa ko attaqué fii man bëgguma duul kat bàyyi leen fenn bàyyi leen fenn benn benn réel moo gën camion féeg benn bu lay déglu bu dëggu moo gën junni yu mun a fen man wutuma dool de wutuma loolu maa ngi nii taxaw ubbi sama laaj cinq mille neuf cent personnes woowuma woowuma kenn woowuma kenn man wooma kenn il a mille neuf cent cinquante six personnes dëgg rek dëgg sa right all right kay wax fi tey mu leer Doro Gaye c'est un Kaolack quoi Gadiaga ak Doro Gaye Gadiaga suñu manager ak Doro Gaye ñoo taxaloo benn kër boo taxoon kër ñoom Gadiaga ne allo Doro gay dégg la seen kër ma bokk nag frère Doro Gaye benn école ñiy ànd Serigne Bassirou Mbacké ñun ay saalum saalum lañ on se connaît <laughs> nay leer c'est pas parce que fii la nit yi bëri rek dañuy nëbbante na nag Doro Gaye ab malgré mu ne kaw la quoi mu bokk ak rakkam école bokk ak rakkam classe di ànd ba ma waree wax ci ma dama ñëw fii Locafrique wax ci Doro Gaye ne leen ku yor document wala dossier ci Doro jox ma ma dóor ko loolu dama ko wax sax si ku yor document wala dossier ay preuve nag pas ay fen parce que man ma xeexee fen ku ko yor jox ma man ma fëgg ko Doro Gaye ba mu daanu ma mu joggi ko dem parce que man sama liggéey sama xeex foofu la ma toll tolluma ci ay caaxaan loolu mooy dëgg bon loolu yëpp kon donc mu fen fa benn xawma lan quatre étoiles bon waaw fa mais euh, Akhenaton moom pare nañ ci moom ndax <laughs> dafa dafa dul ba wow te moo fi sànq booy yi ndeysaan moo sànq booy yi euh, booy kii force spéciale yi ndeysaan lépp Akhenaton la moo bon de fii la fen a fen joxe leen dañuy def ay cocktail mo cocktail molotov joxe leen xol a cotisation ñu jàpp booy yu lëmës dóor ci jeel bi ñi muwul ñëw Sénégal mi ngi toog fële booy yaa ngi ci jeel bi di bërëm <laughs> mais loolu mooy trahison trahison weesuwul nga toog fu nga toog jàpp ay jeunes ne da nga leen di cotiser nekk ci média yi bi sociaux média yi di wax di kàcc jàpp booy sacrifier leen booy Macky Sall dugg seen seen seen biir groupe bi xoolal bu infiltré leen dóor leen ci mbaam bi booy nga toog foofu doo gor boo yaakaar ne ton barke alxuraan bu ma ko defoon sénégalais man ma ñëw jaay ma joxe li nga def li nga def booy nga def nii lu nga leen sacrifié toog France tapet mënoo bouger mënoo yëngu bu doon man la ma ñàkk sama nday ma lu ay booy fan ba tëjlu ay booy dajale ay cotisation ñu jàpp booy man maa ñëw joxewu mais doo gor doo gor doo dara toog sa ginnaaw kii di kàcce ka nëbbatoo ko làqatoo ko amoo sax pour assumer mais ñun ay ñuy assumer lañ soxla ay gars yu dëggu taxaw di assumer ñu amul lu ñuy ragal mais yow yow sa waay doo doo gor de yow doo gor doo gor doo ni doo dara doo tus ku la yaakaar torox tappet nga yaa rey yaa reylu booy yi booy yi ñuy Macky Sall jàpp fii yaa leen reylu kenn du la gis kenn France sax ku fa ñëw ba daw bu kenn du la gis da ngay làqatu comme comme mbóot comme yow amu yow moom say wax loo wax lu dul xo man a Ousseynou sekk nga tudd xam nga loo wax lu dul Ousseynou Seck nga ne kàcckat nga ok donc bu mu weesoo jiji moom dama wax ci moom quoi jiji ñoom dañu am problème mu siiw quoi jiji moom vraiment du ma wax ci moom bon ji jiji da ngay xool xam ni jàngul amul amul dara ci xel mi jiji laay ba bi saaga nday la sëriñ yi damay tocca ko dama kii waaye ñëw leen jiji moom euh, moom mi ngi mi ngi dans l'autre dans l'autre bout waaw ah, sincèrement euh, respect à lui moom mii lay def moom moom <laughs> moom moom jéggal ja jàll jàll jiiji moom jiiji booy Akhenaton la xëy na Akhenaton koy jox muy liir <laughs> muy liir pour jàng quoi dafa nekk ci IOA moom ci IOA la nekk jiiji moom amul problème quoi <laughs> dañoo dañoo dañoo problème mu siiw nag xool leen malgré moo laa ngi ni six mille trois cent cinquante personnes ñoom dañuy ubbi fi mënuñu am six mille même buñ ubbi woon naan moo laa sax nangamtaan mënuñu am six mille personnes billaahi ñoom ñi mu six mille duñ teg fii six mille kàcc rek kàcc rek caay yàlla ay waaye mun ñun sañu Sénégal nañ lañ koy defaree ci ay kàcc na la ñuy defaree Sénégal ci ay fen ay Sénégal toog nii rek di yaa weeku ak ay yàbbeeku fu nga toog di piip piip piip rek c'est honteux ok euh, mais keneen ki tam moom moom tam moom est que jar wax ci moom <laughs> <laughs> moom bu génnee rek day jàpp ni fu nekk ni daanu naa ko te xamul ni man 2024 laa jox gars yi rendez-vous lii rek firndeel na ko mille vingt 2024 laa jox gars yi rendez-vous dama ne dama ne nit ñëpp désabonné wu ba 2024 bu ma ko ciy teg day fees dell doom doomu aadama dañuy ñëw seetaan par la force loolu yàlla moo ko def ba deux mille 2024 kenn mënul stopper Mollah Morgun